amul kenn ku ci mucc ko xamne ne nga ni ànduma ak Macky Sall ku ci ne andu ak Macky Sall mo xam citoyen nga mo xam mouvement citoyen nga mo xam société civile mo xam parti politique nga mo xam syndicat nga xamal ni jaasi gi na dal sa kaw loolu la wajal te bu amé nak dina don avec la complicité du procureur de la République basirou gay parce que nous nit mune ne taxaw ne man xamna ay terroristes